doon wax combat final Macky Sall bu arrêté Ousmane Sonko combat final dina am ñëpp xam nañu lan mooy combat final. ngeen ne Macky Sall bu defee troisième mandat da ngeen koy fekk ci pale bi Macky Sall njuy leen deful troisième mandat sénégalais yi génnuñu taaluñu xeexuñu bañu ñu jàppee Ousmane Sonko et dans les stades ce sont des sénégalais yoo xam ne dañoo am conviction ci seen ci seen ngëm-ngëm ñoom ñooy manifester. de manière pacifique dans la démocratie li nga wax li leen metti donc ñooñu noonu ñoo ce peuple là ah. ñoo leen ñoo dañoo nekk en avance sur vous parce que li ngeen doon prôné comme mode de combat ak mode de riposte bi bul xëytee ne da ah, waxal peuple bi déglu la moo leen gën a mature déglu ma mosoo waxal peuple bi bul ah. xëytee ne da ngay waxal peuple ma ne man jéem maa waxal kenn dama ne suñu discours mësul changé mën nga dem nga seetaan nga génne yépp xam nga dooma génneel fenn foo xam ne dañu wax ne Macky Sall bu defee troisième mandat mi di ñuy délogé ko déedéet xamuñu lan la yàgg mës a wax dafa leer mbirum troisième mandat Macky Sall la ak askan wi parce que ñun xam na ne même mag Sall bu bokkoon midi ñu gagné ko donc ñun amuñ problème boobu Macky Sall bokkoon sax daf ñuy gën a arrangé pour te dire. moom kay loolu ngeen bëggoon. <coughs> ah kon yow mënoo wax une chose. loolu ngeen ngeen naan wax ci kaw nii rek di protester mais en sourdine en sourdine seen vœu moo doon Macky Sall wax troisième mandat réew mi tàkk. mukk si en sourdine loolu moo doon seen vœu soxna may réew mi bu tàkk bu bokkoon xamoon ngeen ne du gagné. réew mi bu tàkkee man damay réew mi bu tàkkee man damay rëcc. ma ne bu bokkoon. non bàyyi rek bàyyi qu'il moo leen doon arrangé defal ndànk rek da ngay wax une chose et son contraire li wolof yi naan di nga wasin baa nga dem tool réew mi bu tàkkoon man dama ci mucc. ah yàgg ngeen def des appels dama lay laaj ndax réew mi bu tàkkoon man. waaw mais xëy na da ngeen fàtte woon bu réew mi tàkkee doo leen ci mucc. non xam nga xam nga yow xam nga ma. xam nga ne xam nga Birame Souleye xam nga ne xam nga Bassirou Diomaye Faye xam nga Fadilou Keita xam nga Soxna Maimouna Dièye xam nga Khadija Maykor xam nga xam nga xam nga wax ma kenn si ñoom koo mës dégg mu def appel à l'insurrection xam nga wax moom ñii nii nii dafa yomb. gis nga ñun ci réew mi la ñuy juddoo màggee fi fas yéene fee faatoo dawuñu demuñu fen dañuy jël réew mi soppi ko ala kulli haal moo tax mu jaral ñu lim ñu jaral ak sacrifice yim ñu jaral ndax yoruñu fetal di dóore yoruñu bomb di tiire au contraire au contraire dangaa ngaa yor say caméra di filmer yeneen télé yor caméra di filmer xëy na nanguwoo wane yeneen télé yi ca bitim réew wane nañ gis nañu ñan ñoo yoroon ay fetal di dóore gis nañ ñan ñoo doon rey gis nañu gis nañu gis nañu ñun dañoo ñëw ci politique indi lu bees indi ay argument indi programme le déclic c'est le 18 démb 18 septembre 16 septembre 2018 ñu génne suñu vision solution pour un Sénégal nouveau woo ay journaliste nga bokk ci ñu dëttal leen lan lañ fas yéenaa tabaxee Sénégal ba li ñëpp bokk ñëpp jot ci Sénégal bi ñu niru Sénégal bi ñu bëgg nga fekke ko jël livre bi lire ko poser question yu la neex ñu tontu la fa nga jaaree fan sax waa ji ba <laughs> xaw ma xëy na fan yi nga changé xamante nañ mais li am solo mooy loolu ñu def gëj nga koo gis ci seenu politique bi lan la lan la ñu indil en opposition gisuñu ko bind livre tontuñu gisuñu ko génne programme tontuñu gisuñu dara lu dul dañoo commencé di ñu xalab rebelle lañu salafiste lañu wahabit lañu loo xalaat ak loo xalaatul teg nañ ñu ko te moo ne day dañoo tënk suñu gis-gis ci réew mi doxañ ko ci livre ñëw wan ko sénégalais yi sénégalais yi wuyu siñu ci loolu ñu dem 2019 génne programme wax ak askan wi ñu wóoruñu nga gis ñu jugee ci prix fort reste 33000 voix dem ci mille vois bonjour les dégâts ñu ne waa ji bu ñu ko freiné wul musiba am ñu xëy génne dossier bi ngeen xam ba léegi dégguloo Ousmane Sonko wala Pastef wala kenn ku indi benn argument de la force wala benn xeetu xeex wala attaqué wala quoi que ce soit ba ba ba ba ba. mais quand même elle m'a dafa dànk bàyyi ma terminer. arrête-toi aussi 2014. <laughs> ba 2021 non déglul ma wax la rek xam nga wax ji dafa leer 2014 ba 2021. waaw d'accord. d' accord nga. 2014 ba 2021. d' accord nga. d' accord naa ne waa léegi bankal sa baaraam. non non xaaral rek non dafa ndànk rek bankal sa baaraam. 2014 ba ngeen ba man xaaral rek. non dafa ndànk rek man xaaral rek. ba ngeen tàmbali non da ngay bàyyi ma terminer déedéet dama ne 2014 ba nga ni musuñoo xool nit ne ko sa bët bi suuf a ngi ci. waaw. te moo ne 2014 ba 2021. c' était l'âge d'or déglul bu baax li ma la wax 2014 ba 2021 rajo nañu fi président Ousmane Sonko jàng fa mu war a jàng. ay parents am góor góorlu comme parent au président Macky Sall ñoom ñëpp ñu jógee ci des familles démunies égalité des chance may leen ñi jàng di di yéeg di yéeg ba yegg fa ñu war a yegg mu xëy jël big ne kii kat jàng na jaar fi mu war a jaar. lu def liggéeyal na réewam fukki at ak juróom. lu mu def musul laal fukki dërëmu réew mi. waaye dama fas yéene ne kii dootul exister ci fonction publique. lu ne lan. c'est quoi les absence de discrétion professionnel discrétion professionnelle ba mooy lan xëy na assemblée nationale bokk na ci institution yi dul fay lémpo ñu ne foo ko jëlee mu ne mu nga ca site ba dem leen liir ko ñu dem ca site ba. fekk ko kese moo tax ñu. kese loolu kese mooy. kese boo xamee beneen génn.